seen ànd ak télévision Futur Média seetu askan wi mbokk yeeg xarit yi ñuy seetaan xibaaru diggu bëccëg gi li ci gën a fës observatoire des acteurs non étatiques du kuréel gu yees guy xeex ger juddu na bokk na ci li bëgg fexe ba réewum Sénégal jëm ca kanam Yaya Jammeh xam le ne ñeent fukk ak juróom-ñaari doomu aadama yi caabi féete ginnaaw ca réewum Gambie dinañu leen faat ndax dogal boobee mooy seenub àtte lim boobee bokk na ca ñeenti doomu Sénégal ak ak ak yelleefu doomu aadama di ñaawlu kàdduy Yaya Jammeh yooye ngir xeex violence bi ñu nemmeeku ci gox-goxaan yi police euh, taxawal na ab opération bu yees bu nu duppee euh, kóolute lépp nag ngir euh, faagaagal sambabo yi nga xam ne dañoo dëkk def ci ñaawteef coow di wéy di am ci diggante promoteur yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy CNG waa seen waa promoteur yi promoteur yi ñoom ci seen wàllu bopp ne CNG nañu tekki seen ndombal tànk rax ci dolli dootuñu weesu lu toll lu yem ci euh, juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay million ganu bës bi euh, Gaston Mbengue dina fi teew ci suñu njeextelu xibaar li ci yéenikaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye moo nu koy jàngatal euh, taxilu leen ñu daal di wax ponk yi nga xam ne ñoom ñoo ci gën a fës mbokk yeeg xarit yi ñuy seetaan asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci xibaaru diggu bëccëg gi observatoire des acteurs non étatiques euh, di kuréel gu yees guy xeex ger moom moo juddu na euh, li mu bëgg nag bokk na ca Sénégal euh, jëm kanam Chérif Dia moo ñu fa teewaloon ci ndaje mi nga xam ne amaloon nañ ko tey ji suba te jëwriñ bu njëkk di Abdoul Mbaye teewe ko ak ki nga xam ne moom mooy njiital USAID. ger musiba la cim réew. loolu la acteur non étatique yi xam ba tax ñu lënkale seen doole samp kuréel gu bees guntu tuddee observatoire des acteurs non étatiques pour la lutte contre la corruption maanaam xeex li nga xamante ni moom mooy musiba bi ci wàllu koom cim réew di guerre. corruption nekk na fléau boo xam ne buñ ko xeexul day constituer euh, day nasaxal euh, koom-koomu réew mi. loolu moo waral tey ñu def sunu observatoire boo xam ne danañ mën a fexe ba. astuut si nga xam ne Sénégal am na ko ñu jëriñoo ko façon boo xam ne dana mën a jëriñ ñëpp ba law ci réew mi. ndaje mi nag ki ko jiite woon mooy premier ministre Abdoul mbay xam le ni gouvernement Sénégal dina indi njàppaleem ci lu ni mel ngir ger daal di dakk ci réew mi. ger nag ni mi lawee ci sunu réew yi jéggi na dayoo ba tax na kuréel yi jóg rekk ngir jàmmaarloog secteur yi nga xamante ni moom la ger gi di gën a lor. at bu jot ñu ne la fii la fii kenn mënu la wax tey. fan la ëppee li ci am solo mooy ñëpp lëkkaloo takku comme nii ko acteur non état ki defee USAID jàppale leen ak suñu commission bi ñu fexe dégg nga di euh, maanaam yee nit ñi ci euh, maanaam mbir mi ni mu tare ba xamante ni euh, bu ñu ci jógul dafay jéggi dayoo. boo waroon a am ñaari milliards investissement bu dee sa sa réew dafa corrompu dana wàññeeku bi ci juróom xam nga loolu musiba la musiba bu premier ministre wax na ko léegi. loolu moo tax taxaw xeex ko gouvernement bi taxaw na ci mais li nga xam ne nag acteur société civile dafay ñëw pour bokk ci sant yàlla yonent ba su moyen nguuru Sénégal programme développement et paix nga xamante ni USAID moo ko financé moom it indi na ci njàppaleem rax ci dolli commission nationale de lutte contre la corruption et la concussion ñoom ñëpp daal di jóg ngir jëlee fii musiba bii di guerre baaxul ci koom-koomu réew Chérif Dia ñeenti doomi Sénégal lañu kenn ki di ab soxna ñoom nag bokk nañ ci ñeent fukk ak juróom-ñaar yi nga xam ne euh, caabi da leen a féeti ginnaaw ci réewum Gambie it euh, président Yaya Jammeh xam le ne dina leen faat ndax euh, dogal boobee mooy seenu atte ñi nga xam ne nag ñooy xeex wàllu àq ak yelleefu doomu aadama di ñaaw ñaawlu kàdduy président Yaya Jammeh leexal yi ak Fatou na dem bi ñu jotee information bi yaay jàmme nag élément bi parewul waaye ñu daal di waxaat lu jëm ci wàllu ak ak fu doomu aadama yooyee ba tey ndax ligue sénégalaise des droits de l'homme ñoom àdduna jëmale ci kàddu yi euh, président Yaya Jammeh ñoom nee nañu loole ab dëppoowul ak euh, yoon te bu ko defee mën nañ ko toppee li nga xam ne moom la ñuy toppee jamono ji Hissène Habré Hissène Habré nekkoon fii njiitu réew bu Tchad ñu déglu maître Assane Dioma Ndiaye euh, micro Daniel Diouf. bi ñu jotee information bi yaay jamee am projet mois de septembre boo xam ne day faat lu tolloog euh, juróom fukki nit dañu gën a gëstu mbir mi ci lañ xam ne ñenn ñi ay détenus politiques lañ ñoo xam ne dañu d'accordul rek ci moom ni muy doxale te mais li ci gën a ëpp solo dafa am ñoo xam ne duñu ay Gambien yeneen nationalité lañ te am na ci ñetti sénégalais ak benn soxna. bu weesoo li ñuy wax condamnation à mort ñu xam tey ne système judiciaire gambien mayul doomu aadama bi bu ñu koy attee mu am li ñuy wax les droits de la défense maanaam mu doon procès juste et équitable ñu xamal nag àddina bi ne su fekkee seen ab euh, Sadam kii yaay jàmme def na lii muy waaj a def ñun dañ koy jàppee comme li ñuy wax exécution sommaire et extra extrajudiciaire donc day mel ni nga faat nit ci tayeef te loolu boo ko defee ci euh, lim bu takku bu mel ni bii ma ko bëgg a def loolu dañ koy qualifier l'humanité de crime de guerre ak torture même. donc bu defee lii tey ñun am na dossier boo xam ne dinañ ko taxawal te dinañu egg fexe ba mu egg fa mu war a egg ba moom itam ñu àtte ko comme ni ñuy àttee ñi nga xam ne maanaam ay euh, bag bo ni ñuy àttee ni ñu nar a àttee Hissène ak Charles Taylor. leneen ci wàllu xibaar aw tiis dal ci njaboot gu ne fële ca Ouest Foire mag ak rak doon xeex Ibra Diop euh, daal di jam Dame Diop Dame Diop sax mujjee faatu seen waajur bu jigéen daal di indi seede yu rafet ci doomam ji di Ibra Diop ne it moom moo def jéey ji waaye nekkul ku bon li ko dal nag ndogal la te seytaane moo ñëw Alié Mbaye Fatima Ba doxantu nañu fa waa kër gi tey jii si naqar ak tiis la yendoo ñaari xale yu góor yu bokk ndey ak baay ñoo doon jotee ba ku ci gën a tuuti jàmm mag ji mu mujj si ñàkk bakkanam Ibra dem dégg may wax ak moom wax ji gën a kowe mu yegsi na daam mi dana sonal sama yaay daam daam dikk na ko daam bàyyil meer bi wax ji ngay wax du waxi dara waxi jigéen yi yi amut solo rek mën a bëri rek bëgg ko téye xam naa moo yoroon nag paaka bi di yëkkati loxo Ibra pel loxo bi bi mu ko pelee nag paaka bi wadd nag mu bëgg koo gaañ la ko Ibra jam lii daal moom dong nga ci am du leneen nag. waaye juru ñaari xale yu góor yooyu ne mënta nangu li ni mel ba léegi moom sax jàpp na ni doomam bii di Ibra du reykatu nit ndax kat ku baax la. Ibra sama caat ci sama biir bi ku ku baax ku yaru. ku dog tànk baayam lu daam war a def wala ma def ko mooy taxaw di ko def kenn defuloo ma ko. ki ko rey moom njëkkoon njëkkoon na sama papa njëkkoon na ko indil njëkkoon na ñoo bëgg a jote mais dafa mujj dem kooko mujj dem xëy bàyyi ko fi te xam nga rek seytaane moom su xasee dugg dugg na ba pare loolu la yàlla dogal ko. Dame Diop ñàkk na bakkanam ibre Diop mi ngi ci garde à vue ay mbokkam di ñaan rek yoon baal ko. lu yàlla dogal lu yàlla dogal kenn mënu ci dara ah génn na àddina ba pare ndax yàllaa ko bu yàlla dogalu toon lii kon moom buggewu ko woon nii ki ko defit bugg ko woon nii bu ma sañu ne tey ñu génne ko mu ne ci kër gi yor njabootam yor ñu hmm? te ki deen ki ñu yóbbu it moo doon yar jabaram di daw di def ci kër gi ñun ñëpp ñu bokk di fa nekk ci jàmm sama doom bu dee dem na ci taalubeem nangul ma nangul baayam kii ma loxoom def mu jaaranteente ko ci moom ba baayam demee ba tey lu mu doon defal baayam mi ko koy defal yaru na nanguwut mu sonn yor na ko yor njabootam moo yoroon kër gi lépp li muy tuut tuut foofu kii war a teg tànkam Ibra Seck bi teg tànkam. soxna si du mës a fàtte bésub alxamis bi ndax tey jii ñàkk na doomam waaye keneen itam mi ngi ci loxoy yoon muy loo xamante ni metti na lool. Euh, Fatima Ba ci violence boobu sax lañuy des ngir xeex lu ni mel police taxawal na ab opération bu yees bu ñu duppee kóolute lépp nag ngir fagaagal samba boy yi nga xam ne ñi ngi def ay euh, ñaawteef ñu ne itam faw fu loolu antu euh, faw askan wi daal di bay seen waar ci boobee xeex ñu teewlu colonel Aliou Ndiaye moom nekkoon gan gi tey jii ci émission yeewu leen. directeur de la sécurité publique. Euh, mu ngi euh, taxawal jamono yi fan yi mhm. euh, benn opération. ay ndaje pour ndaje opération sax. Uh-huh. boo xam ne de grande envergure. Mhm. boo xam ne daf koy tuddee. Mhm. kóolute. Uh-huh. yokk kóolute. wala dëgëral kóolute wala delloo si kóolute mais ci kóolute la koy. bu ma nga baal ma dama foogoon da ngeen di dali ci kaw Samba Boy opération d' abord. boobu mooy li ma yitteel mooy dal ci sàcc su bon seeg agresseur yi. mooy loolu mooy loolu. opération boobu ci loolu la jëm. dal ci kaw Samba Boy yi. Euh, ni ñu ko daan defee démb ak bërki démb di def ay opération de grande envergure def sax di ci invité presse bi parfois ñu koy couvrir. Ah ah. dinañ ci delluwaat. parce que comme ni ma ko waxee rek yëf yaa ngi bëgg egg foo xam ne fii mi ngi bëgg a jéggi dayoo. da nit muy agressé mu soit mooy sa doom wala sa cousin wala ku mu mënti doon wala rek muy dëkkandoo nga gis xam activité am xam ne day jaay drogue. Mhm. xam ne day agressé gis nga ko sax muy agressé mais doo ko boole suñu waxee nga ne sama yoon newu ci. ni ñu leen ko waxee ci sunu njëlbeeni xibaar ñeenti doomu Sénégal lañu kenn ka di soxna ñu bokk ci ñeent fukk ak juróom-ñaar yi nga xam ne njiitu réew bu Gambie président Yaya Jammeh xam la ne ne dinañu leen faat ay bés yi ñu mal ndax te loole mooy seen àtte ñi nga xam ne nag ñooy yëngu ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama di ñaawlu yooyu kàddu Fatou Kiné Deme lañu ciy àndal. ñaari góor benn jigéen Saliou Niang Djibril Ba ak Tabara Samba ñetti doomi Sénégal yi bokk nañu ci ñeent fukk ak juróom-ñaari prisonniers ñu jàpp ni daañu leen faat ci septembre bi ñu dëkkmal ca Gambie bu ñu sukkandiku ci ay xibaar Tabara Samba la ñu kaa tuumaal mooy faat bakkan lu ëpp ci lim googee fanweer yi ak juróom-ñeent ay doomi Gàmbi lañu fukki ak benn ci lim googee ba tey ñu jàpp ni ay prisonniers politiques lañu ñenn ñi nag li ñu leen téye ba jugé leen bokk na ci benn camp militaire bu ñu songu am ci ñoo xamante ne nee nañu dañu doon jéem li ñu duppee coup d'état général Lang Tombong Tamba moom nag ràññee nañu ko ci prisonniers yooyee moom nee nañu da doon jéem ab coup d'état bu moom nee nañu jege yaay yaaya jàmme la woon ci ay jamono waaye tamit ci ñooñee nga xamante ni eh, caabi féete na leen eh, ginnaaw ñenn ñi dañoo jàpp ni dañu am feebaru eh, xel Gàmbi lii ñu duppee peine de mort maanaam ku rey ñu rey la loole dañu ko ajoon waaye taxul woon ñu dakkal ko loolu mu ngi nekkoon ci jamonoy nguuruk Daawda Jawara yeneen nationalité yu bokk nag ci ñi ñu war a faat bokk na ci benn doomu Guinée Bissau ñaari nigerian ak ñaari malien njiiti réewum Gàmbi Eh, ci korité bi ñu weesu dafa yëkkati woon ay kàddu bi mu doon waxtaan ak askanu Gambie eh, ci la xamle woon ne lu jëm ci prisonniers yooye nag eh, dinañ leen faat ci weeru septembre mu nekk ay kàddu yoo xamante ni neexul lool communauté internationale ak ñenn ci mbootaay yuy xeex ngir ñu sàmm ak ak yelleefu doomu aadama ñooñe nag dañoo xàcc dóor ne du ci dal Euh, Fatou Kiné Deme wàllu dem beeg dikk bi lañuy àddu ab accident bu metti dal di am fa nga xam ne moom mooy Thiaroy euh, benn camion moo fiir ñaari doomu aadama ñu mujj sax ñàkk seen bakkan muy benn gune ak mukallaf euh, Moussa musaka kenn la ci ñu fekkee woon jiyee joojee ñu teewlu ko. waaw accident bi mu ngi am ay une heure et yooyu quoi presque ay deux heures mooy la am waaw mais waaw fii benn Jakarta ak benn camion ñoo jiitlante. léegi camion bi ci voie bële la léegi camion bi jakarta bi dafa ñëw ba nii xaw a wàññi camion bi bu ko doublé fekk benn biis mu ngi ci ginnaawam biis bi moo laal camion bi nag ci ginnaaw léegi camion bi tourné jublu nii bi mu yéegee fekk benn ndaw su bu doon dem hôpital bu ànd bootoon doomam ànd ak benn xale bu ndaw ak beneen jigéenam léegi bi ñu àndee oto bi ñoom seen kaw jaar boole leen ak jakarta bi yëpp bon malgré ñun bi ñu dawee ñëw fekk ndaw si mu ngi suuf camion bi ñun ñoo mujj sot soto camion bi euh, pousse ko yëkkati ko quoi génnee ndaw si suuf fekk xale bi moom dee na sur le coup quoi mais doom bi mu bootoon nag deewul. ci kaaraange lañuy des benn tabax bu nekk ca ñaareelu rond-point bu sacre cœur ñu ne boo moytuwulee ci suuf seeni bagage ñu daal fi ndox mi di jaar moom moo dagg ba indi sax ay tolof tolof Demba Ndaw Medoune Diouf ak Nafissatou Silla ci ay leeral tey jii ci ñaareelu rond-point bu Liberté 6 immeuble bi mooy menacé daanu ña fa nekkoon ñépp nag def seen kéem kàttan ngir génne seeni bagage balaa bâtiment bi di màbb matériel bi mot na presque 400 millions li nekk fii comme matériel 400 millions donc euh, ñun actuellement nii dañu jaaxle xamuñu nan la ñuy def on essaie de tout faire pour jéem a sauver li nga xam ne que ni ñu ngi koy ñu ngi koy sauver vous imaginez affaire yi ay fauteuil dentaire la donc du benn fan nga ko mën a génne man maa ngi xaar oto bi ñëw maa ngi jéem a rawale lu ma mën a rawale quoi mais c'est vraiment dommage qu'on en arrive là yàlla def na uti nañu oto jël li nga xamee ne mooy le nécessaire li munta ñàkk euh, jéem ko yóbbu ci suñu succursale bi nekk à li ci des ñu yóbbu ko ci suñu entrepôt ci guddi ba jàpp alxamis la ñu nemmeeku ay yàqu-yàqu ci bâtiment boobee li ko waral nag mooy benn conduit bu SDE bu féete ci suufu bâtiment bi moo toj. fii li fi xew du problème mu ay installation yu baax wala installation yu bon li fi xew mooy zone bi biñ fiy tabax bâtiment yi nekkuñu fa woon donc ñun plan yi ñu yor yëpp plan kàpp kër yi nekk fii ca ginnaaw la ñu nekk fii après la ñu ñëw construire foo xam ne. am na ay conduite te boo xoolee leen loo xam ne ñun nemmali nañ ko boo xoolee fii nemmali nañ ko boo xoolee fii di gis ne fii yëpp dafa bari ay fissures ci suuf ça veut dire quoi ça veut dire que fi ñu tabax nii ci booru Carrefour bi xëy na du suuf soo xam ne lu stable la donc loolu yëpp il faut nit ñi di ko sóoraale donc problème bi mu posé aussi problème urbanisme la. kër yi dend ak bâtiment bi nag ñoom mucc ñu ci ndax ñoom tamit nemmeeku nañu ay yàqu-yàqu ci seen i kër. c'est mon garage. Euh, les fissures. Euh, rek samay miir dara nekku ci woon ci guddi gi la ñu toog rek dégg ay bruit ñu foogoon ni ay sàcc la yeewoo la gis miir yëpp xar bi daal di teggeeku. des euh, ci kaw loolu yëpp nag autorité yi jël nañu ay matukaay ngir wàññi dégâts yi ak moytandiku ay accident. que conduite bi moo toj bâtiment bi commencé di di affaissé wu. donc euh, kër yi contigu aussi immeuble bi déjà dafa présenter ay fissures très profondes poteaux yi commencé na céder donc euh, structure porteuse du bâtiment yëpp dañu affecté en ce moment ce qui fait que l'urgence mooy ñu évacuer immédiatement les lieux maanaam képp ku nekk ci bâtiment bi nga jóge fi mais may préciser aussi que mesure d'évacuation bi dafay concerner aussi les alentours ju bâtiment donc ñi nekk à l'intérieur et ñi nekk à l'extérieur yëpp lay concerner. ci fan yu ñu weesu rek nemmeeku nañu ay taax yuy daanu fii ci Ndakaaru mu war a tax nag nguur gi jël ay matukaay ngir fagandiku. ñu koy jaajëfal moom Nafisatu Silla dawalkatu oto yi ne ca diggante Fatick ak Kaolack ñoom ne ci fitna ndax yoon bu bon bu leen sonal ñu ne bu nu paanul itam ñu ngi jànkonteel ak ay jafe-jafe ci yoon bi waaye itam ci bés bi gën gaa néew dinañu am lu toll ci ñeenti téeméer ci ay koppar suñu dem Demba Ndaw Adiata la ñu fa demoon ñu teewlu seen reportage. Kaolack jagadina diggante bi yeggul juróom fukki kilomètre wante léeg-léeg borom woto yi dinañ ko def lu tolli waxtu li ko waral mooy bon bi tali bi bon bëri ay kàmb ak déviation yu leen di tardel waaw trop vraiment ñun suñu oto yàqu nañ ay organe ngay paan di toji panneau chaque jour ci ngay dëkk vraiment vraiment bu ñu dimbaloon ci tali bi dana dana danañ ci jël loom vraiment sonn na ñun ñëpp tali bi métti na trop ci sëfër seen yi bu dee diggante Kaolack ak Fatick baaxul ci borom woto yi fay jaar dëkk yi jege tali bi ñoom seeni ndaw meruñu ci ndax ci jéem a dëbb daaxee bi ñoo ngi ciy suturlu bi des fois dafa yàqu moo am ay kamb yoo xam ne kamb yu garaaw la des fois oto di ci dal xam nga mun naa indi lu bari tentuwuñ ci dara nag mais dañuy def te yàlla tax rek lu ñu jox ñu jël léeg-léeg yi romb fii ñaanal ñu naa li ngeen ay def baax na continuer leen ci yéen leen a defar rek daal dina baax waaw moo waral daal ñuy defar rek pour lu baax daal. à peu près nag des fois dinañuy am kenn ku ne bu ñu wàccee nañuy am ay 2 millions yooyu ak ñaan bi ñuy ñaanal mais ñaan bi rek moo ci am solo daal mais xaalis bi moom séntu wuñ ko ci. diggante Kaolack ak Fatick dëgëraayu tali bi yàggul am ñu ne camion yi ak car transport diis bi ñu diis ñoo waral mu gaaw a yàqu bay waral ay accident Adia Talla aj Makka di benn ci ponki lislaam yi jub si fii nag ci Sénégal ñu ngi koy waajal bu baax kuréel gi nga xam ne moo koy ceytu ibbi na ay buntam ni ki démb ci suba gi eh, jëwriñ bi ñu dénk affaire étrangères di Alioune Badara Cissé eh, dem na ku ci leen ujaa ji ci seen wàllu bopp eh, di rafetlu wàññi gi nga xam ne wàññi nañ ko njëgu ko Makka gi ci aju ko ren gi dañu ciy teewlu reportage yu Ibou Cissé Fatou Bintou Konté juróom ñetteelu yoon a ngi nii moom muy dem màkk moom mi di Adja Assa Coulibaly soxna si nag tey ci suba dafa ñëwoon ngir fay frais de voyage am yi accomplir yeneen formalité yi jàpp na ni nag ci bureau pèlerinage bi nga xam ni tey mooy ouverture officielle bi lépp baax na fii. 98 ba tey maa ngi dem màkk ni ma gisee liggéey bi daal tubaarkaal la waaw 98 ba tey maa ngi dem waaye ren daal tubaarkaal la liggéey bi daal moom rafet na. commissaire bi daal ku yaatu la. ujaaj ji nga xam ne ñoom ñoo fas yéene dem ci bërëb bu tedd bi nag rafetlu nañu wàññi teggi ñu wàññi prix transport màkk bi ren jile te di ñaanit nag ñu gën koo waat ngir année yi di ñëw dem gi gën a yomb. wàññi paas bi de neex na waaye bu ñu sañoon mu ëpp gën a wàññiku bu ñu sañoon mu nekk ñaari millions. ki nga xam ne moom mooy ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur di maître Alioune Badara Cissé tey ci suba ñëwoon na nemmeeku doxalin ki nga xam ne commission au pèlerinage maa koy def fii ci CICES moom nag ñaax na ñi nga xam ne ñoom ñooy pèlerins yi ngir ñu mun a am aj gu baax. yaatu muñ jéggale jëllale dimbalante loo xam ne nit du ko nangu ku la ko def bu ko def sa morom. loo xam ni fekk nga ni fii kat pour dugg fi foog ñu rang këla fi jiitu toppal ci gannaaw góor ñi nga xam ni yàlla may na leen ni ñoo xaw gën a dëgër bu ñu gisee jigéen ñu jiital ko buy wut palaas ñu may ko bu yoree lu diis ñu jàppale ko bu réeree ñu gindi ko loolu mooy jikko waa Sénégal war nañu fépp fu ñu dem ñu wane ko ba ñu ràññee ñu jigéen ñi bu ñu demee ci commerce bi di jënd nañu siñaalewu bu baax wane lañu bëgg ñu indi leen ko ñu fay fexe ba kooku bind leen reçu reçu boo xam ni du jógati ci ñoom ba ba ñu fay jóge tuuma dafa yomb te fa yow a egg du man eggu fa. jamono ji nag toll nañu ci mille cent cinquante sept pèlerins yoo xam ne dañu inscrire ngir dem màkk. muy nombre boo xam ne yaakaar nañu ne balaa ñuy clôturer inscription yi dana gën a mën a yokk. Fatou Bintou konte xibaaru tàggat yaram saison làmb bi nu dëgmal ñu ne dara leeragu ci ndaxte jamono yi euh, promoteur yi dakkal nañu li woowe woowee montage financier yi wax nañ tam ne dootuñu weesooti lu ëpp juróom-ñaar fukki million ak juróom rax ci dolli waa CNG dañoo war a tekki seen ndombal tànk leeral yi ak Cheikh Tidiane Diaw. lam ni xool di ko xool jaxraan ma tax na ci biir Lac mu mel ni élément bi yambagul dinañ ci dellu soit ci suñu yeneen i xibaar ñu nuñ ko waxe waxee woon ci njalbeen gi maa ngi toog ak Gaston Mbengue muy invité xibaaru diggu bëccëg gi Gaston Mbengue di promoteur de lutte bu ñu dul waxati Gaston nuyu nañu la maa ngi lay fay. Euh, Gaston ñu wax ci jafe-jafe yi nga xam ne moom moo juddu ci seen diggante ak euh, waa CNG ba ngeen sax jamono ji euh, montage yi da ngeen ko da ngeen ko arrêté te ku ne xam ne ne jamonoy vacances ci lañ daan def montage bu saison bi tëjee ba nga xam ne su làmb ju ibbee rek ñu daal di commencé li nga xam ne moom mooy affiche ñu bëggoon xam lu waral ngeen arrêté loolu di montage yi. waa jërëjëf. parce que ñun dañu am benn collectif bu tudd collectif des promoteurs boo xam ni amul woon d'ailleurs li mu ñàkkoon a am moo tax làmb ji sooxee làmb ji mel ni mu mënoon a mel. Mm-hmm. parce que promoteurs yi dañu mas diviser wu. et pour régner nag il faut diviser les gens division bi am na ñu arrangé woon ñu mel ni CNG par exemple même division bi daf leen arrangé woon. Mm-hmm. arrangé woon na sax mbër yi. parce que ci leen daan profito di dox ku di ñoom itam di woowanteeg benn promoteur toppoo ko Gaston fay na ma lii wala Luc fay na ma lee wala Aziz Ndiaye wala Pape Pape Abdou Fall fay na ma lii di jaxase bopp promoteur yi ñun itam eh, ñu nekk ci euh, allure boobu di jëkkante talatuñu dara lu ku ne tal sa intérêt mm-hmm. loolu nag moo dakk ñu def benn collectif ànd juboo mm-hmm. xam ni seen CNG bi aussi eh, liggéeyam li ci des bari na d'abord ay réglement yu wóor yoo xam ni kenn dootul nekk ay tâtonnement benn xew-xew am rek nga tâtonné ni lii la ñuy def ñaareel ba seet nañ ni fisc bi mi ngi traqué le monde de la lutte surtout lutteurs yi bi boo xëyee gis ci journal tel mbër fisc nga koy topp 20 millions 30 millions 40 millions te CNG su defoon liggéeyam bi mu war a def fisc bi duñ topp kenn te danañu am li nu bëgg parce que ni ñuy def bay dagg mbër yi xaalis bi nga xam ne mbër ci fay xaalis sax lu mu bari bari bari yaa ngi tiit ñu dagg ko promoteur bi jël ay euh, matukaayam moom itam am cachet bu mu féetale mbër buy dem ci CNG. am cachet boo xam ne sponsor bee ko moom parce que sponsor bi benn nitu CNG duñ ko gérer ñun ñoo koy gérer suñu bopp. fisc bi bind na CNG lettre. pour collabore ak moom parce que état la pour ñuy ñëw réunion pour contrat bu am ñu am lu ñu ciy teq. nga xam ne mbër mi du ko yëg keneen du ko yëg. comme ñoom ni ñuy teqee ay assurance ak ay yooyu ci assurance bi sax dafa demee noonu rek mais assurance bi ñun tey ku ci joxoon sa mbër 100 millions promoteur bi dee ñàkk na su mbër ma su ci kenn deewee promoteur ba ñàkk na. waaw ma des foofu amul benn organisation ba léegi ndax sànq da ni euh, mm-hmm. seen ñàkk a déggoo dafay lu arrangé CNG te sama mm-hmm. gis-gis CNG ak euh, promoteur yi dañoo war a jëmale làmb kanam lu tax euh, mm-hmm. promoteur yi CNG bi ñàkk a déggoo promoteur di ko arrangé. waaw non parce que su taxawee dagg tey mbër 3 millions. mais CNG moomul xaalis bi mbër moom euh, promoteur moom moom xaalisam daf ko dénk CNG pour mu fay mbër mi su demee ba mbër mi def faay mu dagg ko na ko delloo promoteur bi wala boo au moins mu delloo ko deux tiers yi jël benn tiers bi mais ñun promoteurs yi ñun ñëpp am problème ñun ñëpp ameel banque yi xaalis en commençant par man. loolu moo tax ngeen ne léegi du ngeen euh, weesoo te juróom-ñaar fukki millions ak. d' abord loolu dootuñu ko mënut mais euh, dara gënu la noble ma tooñ leen la baal dara gënu la noble maa mënoon mënatuma parce que ku dem di seet di seet ni xam ne yaa ngi ameel banque yi xaalis xamatu xamagu fu mu yem banque yaa ngi may dégg xam nañu li ma wax képp kuy promoteur amee nga banque bi xaalis bi dul jeex laa u mbër yi fi ñuy waxee euh, gañewuñ ci dara ak amuñu ci dara ak làmb dafa metti ku ci ne tabax nga ku ci ne yaa ngi amee say château ku ci ne yaa ngi amee say yéene nañ leen koy yàlla na jëm kanam mais na fekk it ñun ñi nga xam ne ñooy lebi xaalis bi ñu mën cee génn suñ ci mën lu génn dañuy toogaat même sa jabar soo koy jox dépense vingt mille francs par jour soo demee ba mënatoo ko da nga koy woo nga waxtaan ak moom ni ko mënatuma lii lii laa man waaw mais Gaston bu ñu xoolee euh, fay euh, cachet yu am doole yi yàgg na fi. Mhm. Euh, lan moo tax ngeen xaar ba nëgë ni ngeen di ko wax. no danoo son ku bëgg a dee weqatu xam nga tey deux cent millions nga jël séddale ko ñaari mbër mais deux cent millions vingt mbër mën nañ ko bokk. mbëri ci seen bopp sax ñoom waroon nanoo dellu seen xel xam ni seen i nawle la nekkal te kenn amu ci 1 million ñii amuñu 300000 soo bëggee jël 200 millions séddale ko ñaari mbër ñoom ñoom sax ñoom mën na noo proposé nañ ci wàññi lii pour séddale ko yeneen mbëri mais 200 millions soo ko joxee ñaari mbër moo indi woon critère u claf bi ma koy def ñëpp danañu mos mais doo jël li ñuy wax làmb ji dox na xaalis bu bari népp ñeenti mbëri sédd ñoo ci am xaalis boobu ñi ci am 10 millions mu dund 20 ci làmb ji yëpp te pourtant y a 8000 licenciés donc aujourd'hui il faut que organisation à tous les niveaux mbëri yi ñun ñu ñu doon soxor parce que fi ñu toll yëpp du du CNG du kenn ñu ñoo jël suñu risque ànd ak ñoom ba ñu am li ñu am tey yéen jël seen risque ànd ak ñoom ba am li ñu am tey mhm. waaye itam euh, da nga ni dafa metti ku dee wekku waaye jamono ji dañoo seetlu ne mhm. même bu fekkee jafe-jafe am na tamit promoteur yi dañuy yokk loolu dañuy yokk promoteur yi dañoo bëri fi ne nii lan moo tax bu fekkee amuñ ci dara promoteur yi muy yokk xam nga loolu mm. promoteur fu mu yokkoo fu ñett duggee ñeent bàyyi nañu fu at bu ne fu ñett duggee ñeent bàyyi nañu xam nga. Euh, dafa neexul ci laa jéem dafa neexul expliqué. xam nga soo gisee Gaston muy dawal 4x4 am Aziz Ndiaye fële nga amee say kër ñun sunu yeneen liggéey lañu yor man mii tey bàyyi làmb ji ak kii laa yemale la preuve fan yëpp maa ngi sama yeneen liggéey yeneen yeneen promoteur yëpp ngi seen yeneen liggéey tey yàlla nag moo nu nattu comme ni muy nattoo nit ci sàngara du neex say mbokk du neex kenn mu nattu la ci ñu xam ne lu bon la nga koy def neexul say mbokk neexul kenn noonu la nattoo ci làmb mais tey ñëpp xam na ni làmb ji amul ci nii mu demee nii amul benn bénéfice ci promoteur mais nag nattu tant que yàlla tegu yu ko du deñ tey promoteurs yi léeg-léeg ñu ñëw et puis promoteur on est 12 millions d'habitants promoteurs yi matuñu 15 matuñu quinze ñi fi tëgg làmb ju réy nu 6 donc aujourd'hui nañ delloo ci xel yi ñun ñëpp. te itam Euh, wax nañ ci ni. Mhm. dootuñu wax ak CNG xam ne dootuñu wax ak CNG. Mhm. mais CNG su taxawee bay menacé ni les promoteurs non qu'à se taire. waaw ci loolu sax la ñuy jëm nee ngeen CNG war nañu teg seen ndombal tànk rax ci dool dolli. bu ñu taxawaalaatee beneen euh, seen vice président promoteur la war a nekk. waaw fu leen ko teg. non parce que nag ñun ñoo moom ñun ñooy indi xaalis. dañuy dañuy nekk euh, société boo gis loo gis ci àddina te boo gis bailleurs ya dañ ci am part. ñun ñoo indi xaalis bi ñun pare nañu bàyyi lamb ji bàyyi ko gene organisé. ah ngeen bëgg. waaw non na euh, suñu ko mënee mais duñ ko mën mënuñu ko def jéem nañ ko même date yi ñuy jàpp date yi ñuy jàpp ci at mi ko tëgg. mooy tamit nee ngeen da ngeen bëgg gis seen jëwriñ bu fekkee gisu leen ko CNG tekki wuñ dombal tànkam. ñu toog euh, ban fan lan ngeen di jàpp suñu jàpp ñu ngi liggéey suñu liggéey. bàyyi bàyyi làmb ji bàyyi làmb ji waaw dañuy bàyyi làmb ji toog jàpp suñu liggéey te it fi ñu tegu fi ñu taxaw dafa dëgër toogu noog ministre ak CNG ministre la ñuy toogal ba pare ñun rek sequnu dara ba wax ko suñu bëgg-bëgg suñ ci toppee baax na suñ ci toppul de ministre du dictateur euh, état duñu dictateur ñun am nañu suñu liberté mm. ñoo ci dugaloon suñu suñu bopp kenn sexaluñu mm-hmm. parce que ni tàngal suñu duggee suñu waxtaan ak moom su defee li ñu bëgg ñu ànd ci su deful li ñu bëgg ñu continuer ci suñu yeneen liggéey fexe nu fayee suñu bor autrement. waaw ah, Bass Gaston Mbengue ngeen toog du dogal boo xam ne dina neex amateurs yi euh, ñu koy jaajëfal bu baax moom moo nekkoon sunu ganu xibaaru diggu bëccëg yi li ci yéenekaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye moo nu ko jàngatal. jërë ngeen jëf premier ministre bu Sénégal di Abdoul Mbaye mi ngi ci xët mu njëkk observateur. kuy mbokkam na nga jóg ndax am na ñu koy jugal ñooñee di jugal yéene kaay bi nañu ak kii digle di kuréel gu ëmb ay lom des affaires lañu bëgg moo di ñu dàq Abdoul mbay ci primature mu bañ a doonati premier ministre bu Sénégal la tax observateur dem ci ba jeex nee na ñii di homme daffaire yooyee bari na lu ñu bëgg a lijjanti ci réew mi ak ci bitim réew ba mu dikkee ci Abdoul mbay daf caa dëgg tànkam dañoo gis ne daal waa ji ci boppam daf leen di yàqal moo tax ñu bëgg mu daal di leen di abal ma able ci boobu la yéene kay dem seeti enquête enquête bi ñuy def jëmee ci wàllu bien mal acquis di alalu réew mi nga xam ne ay nit ñoo ci teg tànk te anam ya ñu ko amee jaarul yoon enquête baa ngay wéy journal bi nañu am na benn juge boo xam ne ci réewum Suisse moom la fekk baax war naa yegg si Ndakaaru te yamu ca ndax am na keneen koo xamante ne jiitu waa banque mondiale ñoom ñoo ko désigné ngir ñu topp yëf yooye dana daje ak ñi nga xam ne ñooy kilifa yu impôt et domaine dina daje ak waa douane dana daje ak waa CENTIF loolu yëpp ngir bien mal acquis yi nga xamante ne ji ñi ngi koy tudd ci réew bu Sénégal ñu lijjanti ko ba yëf ya tege ca yoon bu ko defee ku ca nekk la nga moom ñu jox la ko Abdoulaye Wade ak li mu fi defoon bu sàgganul dana ko topp mu di lan Pape Samba indil ma xët mu njëkk populaire lii mooy monument renaissance africaine di xërëm gi Abdoulaye Wade sampoon fii ci Wakam journal bi nañu ba ñu ko sampee ba léegi Wade ak la mu ci doon séntu dara ci amul benn mooy yéeneem moo doonoon nit ñi ñëw di ko wisit si di xool yëf yak na mu demee at ca ba xërëm nga sampee ak léegi daanaka ña fay visité dañ leen di wàññi boole ceekit lu toll ci ñaar fukki ak juróom benn yenn yi nga xamante ne ji def nañu ko na daanaka nar naa dem ci Mali foro yëf ya demul dikkul ma dëkk ci leneen xët mu njëkku laas ak lu aju contrat déggoo bi nga xam ne dox na ci diggante ñii di euh, Millicom ak état bu Sénégal Tigo yéenekaay bi dañ lu toll ci juróom fukki milliards waxumay million de juróom fukki milliards moom la yëkkati ngir ñu mën ko baaxe leneen ci réew bu Sénégal loolee kilifay réewum senegal ci boppam la ko jox kilifay réewum senegal am nañ ñu leen doy sëkk mboolem yéenekaay ñu xëy ndool yu ca bëri xëy nañ dëkk ak ñun ci bakkan yu rotati ci réew mi doore koog direct info mi dikk ak ñun lu doy waar yëf yi mi nga xewee ci Ouest Foire fii ci Ndakaaru Ibra Diop moom moo rey benn grand frère am koo xamante ne ji magam la ñu naan ko Dame Diop paaka la ko jam ba mu dee loolee yéenekaay bi daat ci dellu si beneen bi yéenekaay bu ko fekk si waat bokk na ci réew mi quotidien réew mi nañu la tax jamono ji ñi nga xamante ne ji ñooy nit ñiy faatu bari mooy Abdoulaye da ñi mu génne woon ci kaso bi gracier leen ñoo ñoo ñu wëlbatiku formé ab gang di teg lu leen neex ci réew bu Sénégal di fa jaay doole yéen bi daat ci dikk ak ñun ci wàllu yaa gën koo leeral leneen lu ñu war a leeral mu aju ci jamonook ñaaw ñaawteef yi jox leen ma xët mu njëkku libération voilà mi ngoog cybercriminalité buñ ko déggee mooy ñooñee dem ci internet bi di fa def jëfu ñaawteef ak jëf ju ni mel benn gang boo xamante ne ji ay élèves rek ñoo ca nekk ñoo nekk ci criminalité boobee di ca def loolok loolo lu ne yéen bi nañu def nañu ko fa Fodé Ndiaye su ma ko waxee xel yëpp am na fu ñuy dem moo di policier boobee ñu faatoon ci jamono ji nga xamante ne ji askan wi wàccoon nañu ci mbedd mi di ñaawlu lii di dog-dogi courant yi policier boobee ñu faatoon ñee ñu ca tudd ba jàpp leen observateur nañu la ñuy daj ca kaso ba mburu daju ko ci taal benn moo di dañ leen di def na ko sudul noonu am na ñoo xam ne seen awra ci boppam dafa am ay cicatrice maanaam ay léget am ñoo xam ne seen loxo fii ci boppam dafa ay léget maître Assane Dioma Ndiaye di xam ne ne loolee ak lu ci mën di am rek nguurug Sénégal lu jin njaaga moom mooy njaag moom mooy responsable ci wàll wu ni mel weneen wàll lay dem muy wàllu tàggat yaram du ma génn observateur Alaaji Diouf football kat bi yëkkati na fa ay dëgg waxati na fa sànneti na fa ay xeer gi la yoon ca Mayacine Mar la ko jëmee nee na Mayacine Mar mi ñu jël fal ko DTN muy directeur technique national n'importe quoi la ñi ko def teguñu ko fenn Alaaji Diouf foog la ko yóbbu ca Leeds United ñu bëri gis ne dafa dellu gannaaw moom footballkat bi doomu ndar bi leeral na ko wàllu làmb lay wax ak promoteur yi nga xam ne leeral nañu seen seen seen taxawaay promoteur yooyee collectif des promoteurs du Sénégal ña ca bokk ñi ngi ci xët mu njëkk Leewtoo yéenekaay yi ñi ngi ni Gaston Mbengue Pape Abdou Fall Aziz Ndiaye Assane Ndiaye ak ki nga xam ne moo di Kandji production bi a kaay bi dañu dajewaat nañu ci seen biir lañu daje ba ñu waxtaanee sunu lamb nañu maa leen koy wax moo di CNG bi ci boppam la ñu ne dootuñu ko reconnaître ti CNG bi na fi jóge ñi fi nekk nañu dem seen yoon ñoom léegi CNG bi waxatuñu ak ñoom dara mënatuñu ko reconnaître leneen lu nekk suñu biir sañu war koo reconnaître damay dem xooli yéenekaay bii di observateur lu doy waar di xale jigéen yi nga xamante ne ji dañuy dem ba nar a màgget far te mosuñu dégg alxayri doon célibataire mosuñu am jëkkër far bu baax sax mosuñu ko am yéenekaay bi dafa xëy def ci gëstu bu yaa am na ñu mu ci dajal jàpp leen ka ca njëkk moom nee na am na juróom fukki te mosul xam nu góor di mel maanaam daal ma ndawam ba léegi ka ca nag nee na moom toog mu toog di yàgg di xaar jëkkër munul fexe ba gis ko tax na benn xaritam bu jigéen dem bay far jàppe ko gelam maanaam lesbienne mi ngi ci observateur jërë ngeen jaajëfal ko moom Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yeeg xarit yi ñuy seetaan fi la ñu yem ak yéen ci xibaaru di bu bëccëg gi yeneen i xibaar juróom-ñaari waxtu ak juróom-ñetti waxtu ci ngoon lay doon jaajëfal leen ci teewlu bi ba lëkk incha allah yéen ak jàmm